ahlan bikum Ousmane Sonko ak Jean-Luc Mélenchon fa ñu xamal conférence jàkkaarloo ak étudiants yi ci université bu Ndakaaru waxtaanee ay tomb yu bari l'évidence yéen a kaay moo ñu ko xamal ne waaye man li ma gën a neex mooy na ñoom ñaar ñëpp fañ doon waxante dëgg amul làqatu ca digg ba la ñuy jaar wal fajir yéen a kaay na ko faalay ñaan may moom a wax sénégalais yi la Ousmane Sonko wax ci wetu Mélenchon yow seetal bëgg-bëggam la wax ci Afrique gu nekk benn demal seen bopp nooteel gi nga tubaab bi fa ñu ko yàgg def ci suñu maam yi ba léegi mu dakk beneen doxalin la bëgg ci diggante France ak réewu Afrique yi Vox Populi dëggal ko ne Ousmane Sonko fa wax lu leer nañ nee na tubaab yi rawatina France jëflante gi mu jëflante ak réewu yi yëpp ñun africains yi ñoo ciy perte fa ñoo yàgg néewal doole France fa ñoo yàgg noot ci fànn yëpp nag loolu nag fa jot mu dakk teral yéen na ko yemut fa de Ousmane Sonko fa dugg ñaawlu doxalinu doon méttital fitnaal waa Pastef yi di jàpp di tëj kaso di toroxal sénégalais yi doon ñaxtu ñu leen doon fitnaal bañ rey ci ñu bari te ba léegi kenn mës ta dégg gouvernement bu réewum France taxaw ñaawlu loolu nguuru Macky Sall gi doon def yor yor kaay ne Afrique gu moomal boppam lii la Sonko bëgg le républicain yéen e kaay ne Mélenchon kay tubaab ba Sonko fa koo gërëm ci taxawaay bi mu doon def doon jàppale waa Pastef yi bi leen nguuru Macky Sall gi doon fitnaal ak méttital regard yéen e kaay ne waxante dëgg xam na fa de critique e kaay ne waaye tubaab ba tamit Mélenchon gëm-gëmam wax na ko mooy fexe ba góor jigéen yi mën di takkante seen biir waaye ba muy noppi la ko Ousmane Sonko tontu na ko gis nga mbiru góor jigéen nag fii Sénégal moom ba àdduna tukki duñ ko fi mën nañ la nag toléré le Dakar waaye yéen ne man faa xamut Jean-Luc Mélenchon mii ban muus moo ko mat ba tax mu ñëw ci réew moo xam ne diine ji moo fi hëpp ngay taxaw di kañ mbiru góor jigéen xanaa kii fa dof yéen a kaay bi ne waaye njiitu jëwriñ Ousmane Sonko fa dànkaa fu tubaab ba na ko yéen waa bitim réew fexe leen bu leen seen loxo mukk di ñu jéem a forcé mbiru góor jigéen ci ñun ñi yéen a kaay doon tàccu turbine yéen a kaay na Sonko kay fa dalal xelu Jean-Luc Mélenchon ko wàllu góor jigéen yi askanu Sénégal ñoom ñoo koy géral seen bopp maanaam ñoo koy fajal seen bopp rek enquête yéen a kaay ca geneen wàll ga nag man faa gis ne Ousmane sonk ak Mélenchon mii beneen xeetu jëflante ab deal bu bees daal ci lañ nekk rawatina ci jëflante Sénégal ak waa bitim réew ah, yaw seetal Ousmane sonk fa wax ne wàllu base français yi nekk fii ci réew mi nee na génn wàllu presque Ndakaaru barab yu bari waa bitim réew ñoo ko occupé lu jëm nag ci jàppale réewu Mali Niger Burkina Faso duñu wan ginnaaw mukk suñuy mbokk te mooy réew yooyu ma tudd lu jëm ci franc CFA bi Ousmane Sonko yi lam wax fa leer nee na ñoom liñ tànn mooy nañ génn ci franc CFA bi ndax ab réew mënoo suqaliku te yow sa xaalis réew ma ngay doxalee moomoo ko France koy defat di la ko yónnee ba pare nga koy fay ci loolu waaye nag génn bi ñu war a génn ci franc CFA waruñoo tëb rek def ko noonu déedéet ndànk-ndànk waajal ko ba xam suñu xaalisu bopp jël matuwaay yi ci war yëpp Mélenchon tubaab ba feelu ko na ko xaalis boobu fa ngeen ko war a régler te yéen réewu Afrique a war a am fulla ak fayda ba bopp ndax man dëgg la tubaab laa français laa député laa waaye su ma waxee dëgg rek te yàlla tax jëflante bi dox diggante France ak réewu Afrique wala sax tubaab yi ak réewu Afrique yi jëflante bi yëpp la ca gën a bëri ñaareel injustice moo cay am ak ñun tubaab yi di xool suñu intérêt wëli si yéen seen intérêt kon nag pesum kanam borom ma koy fajal boppam régler leen ko su ngeen xamee fulla fayda kay yéen président Afrique wax ja loolu lay niru <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne plan bi fi nguurug Macky sàll gi tegoon ci xeex wàllu mbënd mi fañ cee dugaloon juróom-ñaar téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñaar 717 milliards léegi nag Ousmane Sonko njiitu jëwri ni fa wax ne fa ñuy amal audit càmbar 77 milliards yooyu fan la dugg fa war a leer ca conseil interministériel jam ñaajo fa la ko waxee su du quotidien nettali ñu ko le soleil yéen kaay na ko yemut fa de président Ousmane Sonko gouvernement bi fa ñoo jël ñaar fukki dogal ak ñaar ngir xeex wàllu mbënd mi ren l'observateur moom fa dikkaat ci fal gi nga xam ne président Diomaye Faye mi koy fal fi mu nii fa jàpp na fal gi daal wàllug politique ak neexalaate la ñi doon xeex daal ñu jàpp a woon plainte Pape Sané ak Cheikh Niass <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na borom njum Cheikh Oumar Anne fa dellu dëkkam njum fañ ko faa teeru teeru bu ko gën a ngand te ponkal mbooloo mu bëri ba jéggi dayo ba tax laa dépêche yéen kaay na Cheikh Oumar Anne kay ba léegi mooy borom njum borom parti bi tudd réew mi di Idrissa Seck moom fi mu fa nekk ci ay jafe-jafe partem ba ponkal yu bëri ña ngay démissionné wan ko ginnaaw doomam ja Abdoulaye Seck ñu ngi ko jàpp tudd ko ci wàllu trafic drogue moom idi révélation yéen kaay moom fa ñoo bu Sénégal fa jàppati faux billet lu tolloog ci juróom-ñaari milliards aay la dépêche yéen a kaay fa xëy moom dalal Cheikh Ibrahima Diallo njiital parti bi di PJD ca Medina Baye Kaolack fa joxe xalaatam ci BRT bii nga xam ne fa tàmbalee daw nee na fay mandargal continuité bu am ci état bu Sénégal ginnaaw bu mu rafetloo BRT bi l'observateur na ko waaye am na ñoo xam ne suñu rafetloo BRT bi tamit fale na lor de te mooy borom oto taxi clando yi fi mu toll ni nit ñi kenn jëlatul clando Ndakaaru BRT bi rek la ñu te loolu fay tax ñoom duñu am xaalis fañ koy jéem a lijjanti daal ci guddi gi source ay fekkoon bu SAPCO Souleymane Ndiaye fa jàq na fañ koo bëgg a rey ndax fa dem fekk otom ba ñeenti pënu yu ñu deseere wiis ya nga xam ne bu dawoon bu baax rek fay def accident dee loolu la ragal ba tax fa porter plainte ne fa am ñu ko bëgg a rey ñi nar a rey seen bopp nag mooy xale jigéen yi nga xam ne fa ñuy xeesal jël mercure dugal ko ci produit yi ñuy xeesalee lii yéen a kaay nee na loolu lu garaaw la danger la ci seen wàllu rein yi l'observateur moom fa ñoo ba ca njëkk mooy fa xam boo xam ne fa bëggoon a rey benn boutique ndax nee na borom boutique bi fay tëdd ak jabaram aay l'observateur fa ñoo xamal ne fa xam ab mbindaan boo xam ne fa sàcc patron am fukki million ak ñaar aay yaa nga amee ca ndakaaru waaye li ci yéeme mooy mbindaan bi bi mu sàccee fukki millions ak ñaar xam nga nu mu defam fa jënd oto di galayaabee ko noosaka gundaan daat aay waay ndaw sàmm waa ma ne fa ngaa juum ñaari yoon waroo woon a sàcc ndax sàcc baaxut ñaareelu njuumte bi mooy boo demee ba sàcc waay waay nga def ci farata demal jënd kër tabax ko ubbi place liggéey génn mbindaanu goog nga nekkoon waaye jënd oto di galayaabe xaalis ba fay mujj seey léegi yaa ngi ni jàpp nañ la ba yóbbu la tribunal buñ la lay xenu